jërëjëf euh, Amadou Diarra question boobu defe naa ne leer na ci liñ ci tontu. Mhm. Euh, léegi bon mun nañ jàll directement ci euh, beneen question. bisimilah muy da nga def li ñuy tere ci réew mi ah. li ñuy tuddee transhumance. Amadou Diarra PDS la ko ñëpp xamee woon. ànd na fi ak Madické élection yi passé mooy deux mille dix neuf présidentielles yi. gaa ñu tëb tëb rek ñu gis Amadou Diarra ndogu ak président. ba nga demee ndogu ñibbi si naka nga duggee ci koñ bi est-ce que amoo woon benn gàcce pour janoog sa waa commune. Euh, euh, est-ce que est-ce que du ay sabar lañ ma teertoo non ay xiin ay xiin lañ ma teertoo koñu ñu Espar fii Lamine ngay dëkk. lañ doon ndogu public rey nag invité quartier bi yëpp ma tardé ndogu boobu ndax ndogu présidentiel bi c'était juste une audience euh, ba 19 heures ndogu jot. président dafa woor dama woor ñu ndogu. ah ndogu présidentiel tàndarma café meew benn croissant jeex na quoi booy wax ndogu gars yi dañuy yaakaar leneen alors surtout les njóobeen hmm. euh, alors transhumance hmm. man bañuma ko hmm. bokk ma ci ñu koy bañ yow xëy na bokk nga ci ñu koy bañ mais réew mi ñoo koy bañ waaw ah, man fekkee mu fu koy réew mi bañee gisuma ci loi bu ñu ko def ensuite man li ma def du transhumance d'accord mais boo ko dee bañ dañu benn lii da ngaa ragal li ngay assumer man damay assumer dem naa APR te ba may dem APR bàyyiwuma ma benn parti mhm. je PDS laa juddoo màggee PDS ba weesu juróom fukki at damay def troisième secondaire laa nekk PDS ndax dirigeant grève laa woon mhm. ñu conseil ma ñoom alin Diop il faut nga am foo wéeru kaa ñu yóbbale ci góor gi avocat la kan Ablaye Wade ma dem point toog ak moom miir di ko xoolee Abraham Lincoln wala Nelson Mandela. Mhm. commencé di militer. d'accord ba ren alors présidentielle jot Macky Sall gagné ñu te mu bokkoon ci ñun. Mhm. daan ànd ak moom tournée. bokk oto bu ñu yéeg. faa ñu lekkandoo mburu ak mayonnaise. Mhm. ngool huit heures neuf la ñu taxaw kër góor gi. def tournée caravane bleue dellu si toog. dix neuf heures paa bi bu ñëwee day continuer audience am ñun ñuy xooli fu ñuy ban kees la ñuy jëndee lu ñu lekk. ñëpp sonn bu paa bi doo ñaan dem xoolal nañ leen ñibbi góor gi buñ ko toppee dañuy dee te on était très jeune président de la république ba ma koy xam kon yàgg na ba ñuy àndandoo di xaritoo yàgg na ñu nekkandoo député à l' assemblée nationale ba mu nekk président assemblée j' étais député et président de euh, rapporteur de commission donc yàgg naa xam Macky Sall te dew ma ci moom 2012 dañu gagné lu tax dew ma 2013 su ma doon transhumé lu tax dew ma 2014 lu tax dew ma 2015 lu tax doomu 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ba présidentielle amaat fii pourquoi dew ma pourquoi ci diggante bi tous les ministres de Abdoulaye Wade yu mu amoon plus de quatre-vingts ministres ñëpp dem nañ mm-hmm. et y compris des présidents de de d'institutions mm-hmm. y compris des premiers ministres lu tax dew ma je n'ai jamais été nommé ministre ou directeur j'étais maire te maire maa dem campagne sur la bannière du PDS ou de sa coalition ma gagné mm-hmm. ba ma demee élection 2009 gagné wu ma damaa toog joxuñu ma ndomba tànk ma continuer des ci parti bi ba 2021 2009 2010 2011 2012 nekkatuma maire bi ma nekkee député élection laa dem ci Pikine bu ñu gañul woon du ma ko nekk donc lu ñu nekk lu ma am ci PDS compétition la su ma gañee nekk ko su ma pertee toog duñu ma jox dara meroo ma ko kaasu ma ko président Macky Sall bi gañee Abdoulaye Wade dama amoon envie venger wu kañ élection présidentielle bi ci topp 2019 muy 2019 ñu ne Karim candidat la ma ne leen c'est hypothétique mm-hmm. surtout avec le changement de la constitution l'article 56 mm-hmm. de la constitution qui stipulait que pour être candidat il faut être sénégalais mm-hmm. on y ajoute pour être candidat il faut être sénégalais inscrit ma ne ah, ah piège baa ngi dugg de lii nii c'est destiné à Karim Wade nañu fexe ñu wut une candidature alternative pour buñ ko bloqué fii ñu am kenn ku mun a jàmmaarloo ki gagné sunu góor gi 2012 c'est pas logique comme réflexion et comme des intellectuels on en débat au comité directeur dans le parti ñu ci waxante il faut ñu xool kan mooy taxaw bon mais j'ai pas les moyens de le faire ma dikk taxaw yàlla dégg naa sa position doo jaar ñu waxtaan ci ñu waxtaan ci ma ne ko il faut que quelqu'un s'assume vraiment je suis prêt à m'assumer ma ne ko ah da nga ci wax a góor gi te bul bu mu nekk téléphone bu mu nekk par presse interposée demal ba ci moom jël oto dem taar wax a góor gi mu dellu si ne ma d'accord mais moi je ma ne ko je te soutiens tout en restant dans le parti parce que jamono jooju Madické Niang était député président du groupe parlementaire ba muy dem présidentiel ba présidentiel bi jeex ba ñu gagné ko muy doog démissionné donc qu'est-ce la laa soutenir un militant de mon parti waaw les gens qui ont soutenu un militant d'autres partis kenn dàqu leen mën ñu dàq ma dàq ma comité directeur dàq ma secrétariat national je faisais partie des dix-huit conseillers de Wade conseil spéciaux de Abdoulaye en politique avant mu jël décision lépp 18 lañ on avait un mailing group ku nekk di jot et cetera ñu génnee ma dans toutes les instance y compris Pikine Nord où pendant 10 ans 15 ans man maa fi nekk le responsable woowatuñ ma di def tournée di confisquer seen carte def ay réunion ay nit di jóge Pikine Nord di dem audience mm-hmm. ma bëgg audience ak Abdoulaye Wade ñu ne ma non non mu recevoir Y'en a marre sans moi muy recevoir Thierno Bocoum Barthélémy Diaz ñeneen qui ont ba mu daanu ma des ci parti bi ma bëgg audience rek la ko far xalif bi jubale Abdoulaye Wade ak ak Madické maanaam kon yoon bi ubbeeku na j'appelle tout le cabinet on me dit oui Karim Wade nee na nga bind une lettre de demande d'audience c'est ce jour-là la sour PDS donc da nga ñëkk non du ñëkk dama am mhm. ma jël toute ma jeunesse troisième secondaire lycée université baam am juróom fukki at ak benn jox sama part sama bopp parti bi jox ko ma jeunesse mon sang mon énergie tout ton combat ce parti-là nos adversaires qu'on hier di am audience man on me demande une demande d'audience une lettre de demande d'audience loolu mooy suur nañ la mooy soxlaatuñ la ma am sama dignité toog en hibernation pendant deux ans bokkatuma PDS ñu doxal seen kuréel est-ce que je dois mourir politiquement est-ce que je dois pas avoir un schéma ma ne damay créer sama mouvement ànd ak ñi ma àndaloon ci ma dikkee ci biir Pikine d'autres responsables dans d'autres communes ñu taxawal mouvement bu tudd yoon wi. Mhm. commencé def promotion bi président Macky Sall yónnee woo ma publiquement avec le ministre de la jeunesse avec Ablaye Timbo qui est le maire de la ville mhm. yónnee ay ay ndaw ay marabu ma ne leen non ñoru ko su ko ñoree moom ci boppam dina ma woo recevoir ba ñu xamee ne c'est la condition mu woo ma ma toog ak moom. wax mu ne ma da nga dëgër bopp xamoon naa ne tant que yaa ngi ci PDS duñu mën a liggéey mais léegi comme bàyyi nga PDS PDS dàq na la xanaa di nga ñëw jàppale sa grand en tout cas mais grand bi nga xam te ne jàppale wu ma ci mairie bi sama gox projet bi ma am ñu bloqué mu ne ma loolu jeex na lan moo ci problème ma wax ko mu ne ma bii dinañ ko régler xaaral bii mu woote bii mu commencé satisfaire ba may ma juróomi tali. ba jurom juróom benn woo directeur bi nekk seen projet bees bi di ñëw saa waa ji sóoraale leen ko ngeen dem seeti ko parce que nee na da ko daan op da ko daan xooj arène nationale bi quatre-vingt-dix millions chaque mois ñu xoj ñu du ko duñ ko am may meeru gox bi xaalis boobu ñu soxla ko ma ne ko ministre bi daf ma off mu ne woo ministre bi ma ne ko li wax loo ci xam mu ne ko non cest à mu ne ko amul c'est-à-dire dee condition bu normal la leen ko yoon li ci commune bi war a jot foog ñu ko defee mu jot ko ci. ma ne ko projet yi ñu am yii luñ ci mën a jàppale mu ne suñu stade bi naa la ci jàppale. stade bu mu bëgg a tabaxal ndaw bi gazon synthétique. Mhm. avec des projecteurs xale yi talent yi mun a éclore. am projet centre commercial Zawiya Cheikh Omar Foutiou Tall maison de la jeunesse et des étudiants maison de la femme euh, manège mhm. pour que jeune Pikine bu ñu demati Magic Land mhm. di dem ba cour de cassation ou bien booru teeru bi mhm. mu impacté sa poche papa su dee am nga oto sax da ngay fay carburant soo ko amul taxe ngay fay ba pare nga fay ay tax pour jouer say doom quoi pourquoi nous nu ñu ko am fii Pikine Nord étant la cœur de cette banlieue j'ai projeté de le faire ici ñi di doxantu di def promenade yi suñu maam yi daan def autour benn Magic Land xale yi di foo mag ñi am connexion gratuite au début di connecté suñu paree ñu jël seen doom ñu am une belle vie c'est ça mes ambitions mm-hmm. boole ci réglé waale assainissement bi nekk ci quartier boobu yëp régulariser seen i këyit parce que beaucoup de maisons amuñu titre mm-hmm. loolu mooy moo projet pour Pikine Nord après ça mun naa démissionner wala ma bàyyi mbaa ma dee mm-hmm. mais Pikine Nord besoin de faire ce up infrastructurelle pour que mu nekk la capitale de la banlieue abritant en même temps la sous-préfecture de Dagodan Pikine mm-hmm. pour en être le chef-lieu d'arrondissement mm-hmm. ensuite la préfecture du département vous ne l'ignorez pas certainement la préfecture de Pikine le préfet de Pikine mm-hmm. xëyul département de Pikine bureau moo ngi Guédiawaye ça il corriger ça pour bon pikinois ñu indi ko teg ko et ce projet le président l'a validé pour ñu def ko fii sama commune on n'a pas de notariat ici, de notaire ici. Mm-hmm. Une étude de notaire à Pékin, dans le département de Pékin Amoul. Le président Maxal vient de signer il y a quatre jours un décret nommant maître Bassirou Diallo son collègue pour ñu ñëw installer mm-hmm. à Pikine Nord pour notaire pikin Pikine yëpp ku soxla acte notarial nga ñëw fii mm-hmm. donc Pikine Nord commence à être la capitale de la banlieue et ça a toujours mon combat donc lii jarul ak sama fonction politique ak ban parti laa far ak kan laa àndal transhumé nga transhumé yii di avantage muy bokk économie sama gox est-ce que jarul ma ànd ak président beneen bi tali bu mag bi xat bi mu xat su ma amee centre commercial deux mille cinq cent places ma marché bi laaluma place kenn dem def ko ca ñax ya ba mu pare ma jël ñi ci tali bu mag bi yëpp en priorité ñu séddu balaa kenn ma dugal leen ci centre commercial boobu tali bu mag bi dootul nekk voix bu neex kër yi ñu daan fàtt ñu nga xam te ay xale juddu nañ fa ba màgg dem université seen kër bu ñu génnee cantine la ñuy ñoo ñu seen kër mun a feex kër gi am valeur nga mun ko jaay banque wala benn étude wala voilà ñu mun a am un boulevard où da ngay gis ni fi banque yi taxawee centre commercial yi taxawee Pikine Nord nekk la commune la plus attrayante du point de vue économique du point de vue culturel di point de vue religieux pour avoir abrité ici xayma bi xayma xaadar yi mhm. xalif général des xaadar mhm. su dukkee Sénégal bu dugg see pikin Pikine Nord lay tax ci tali mag bi mhm. alaaji Serigne Faye foofu la représentant xalif général des Mourides nekk sëñ alaaji Omar si fii Chérif yaa ngi fi Mbàkke Mbàkke yaa ngi fi ci diine bi pikin Nord c'est la capital on laisse la jeunesse le cons le comment on appelle ça la maison de la jeunesse et de la citoyenneté l'unique pour tout le département pose première pierre bi moom lañ def fii à Pikine Nord Sénélec Pikine Nord ak li ko wër ba ci est ak ouest li ko wër mm. booy fay courant Pikine Nord ngay ñëw fii taxaloog mairie bi ñoo koy tabaxaat poste nga am sa lettre muy dem Pikine Nord ngay ñëw centre social CPRS Pikine Nord ngay ñëw la grande mosquée la première bi président financé un milliard trois cent million Pikine Nord la nekk moo jàkkaarloog syndicat fii la préfet di jullee sous-préfet maire de la ville commissaire Pikine maire de la commune jumaa ji la c'est la première mosquée de Pikine ak lan last but not least nationale ak lu muy représente suñu culture l'unique au Sénégal Pikine Nord la nekk nous avons une commune qui mérite véritablement d'être la capitale de la banlieue up en tout genre et c'est ça mon ambition c'est pas ay affaire u toog ci fauteuil ñi bëgg a nekk maire après pour toog naan non xaw ma woon lii la fu may jaar moo je suis un expert et un consultant en décentralisation quand parle de la décentralisation di ko jàngalee Ghana Burkina Faso di ko jàngale yeneen dëkk di ko jàngal ay maire fii ci Sénégal agence de régulation des marchés publics di ma jël dans des séminaires may ex jox des expériences pratiques à des maires ici au Sénégal des maires qui m'appellent monsieur le maire tel dossier code des marchés fu may jaar j'ai eu un nangam ma nekk le point focal de la région de Dakar qui est la capitale le point focal des maires dans le cadre de l'association des maires du Sénégal ce maire là vraiment j'ai aucune crainte par rapport à la capacité de diriger ñu tuuti balaa ñuy perte temps waaw euh, ci arène nationale bi nga wax léegi-léegi bon bëggoon nañ aussi def ci benn précision bu ndaw avant ñuy avancer mooy gis nañ ne lamb suy am ci arène nationale bi ñëpp ñu dëkkee ci zone Pikine bi wala ñu dëkkee zone Géejawaay bi bu làmb ji jeex ci insécurité la ñuy nekk. absolument waaw loolu nag buggoon nañ aussi euh, ngeen wax ci ak autorité yi. c'est réglé ba ñu mën a régler loolu. c'est réglé waaw. jour bi ma toog président audience dafa ma ne dégg naa la ngay casse affaire police. c'est logique. Mhm. léegi je vais demander un détachement de génie fi ma lay wax projet boobu. Mhm. préfecture dafa tabax dañ fay tabaxaale commissariat bi. Mhm. mais fi may wax ak yow jeunes yi ils sont logés dans l'arène pour gérer la sécurité spécialement pour ça yem yemuñu foofu actuellement ñoo ngi def ay rondes aux alentours booy saret yi nekk ci ginnaaw ak temps yi ñoo ngi def ay arrestation di joobaale seen job boobu donc je félicite et je remercie le président de la république ci sécurité boobu bokk na ci taxoon ma ne arène bi effet négatif yooyu ñuy impacté ñun commune ce n'est pas normal les taxes de spectacle commune bi bañ cee am. Mhm. là également le ministre Omar Gueye et le ministre Matar Ba ak man def nañ une première séance de travail pour conclure à ce que Pikine Nord sans ñu gaañ les promoteurs puissent recevoir les fonds afférents aux taxes de mhm. spectacle. actualité oblige il faut ñu wax ci muy mbënn mi. oui euh, même si bu nekkee Pikine fu doon taa fu bari taawatul. Euh, gis nañ ne ñu ne Kër Massar sonn nañ lool ñu nekk ba caaro sur Mer sonn nañ lool. yëmbal am na ñu sonn. Kër Massar te état dépensé na pratiquement plus de cent dix milliards ba ñëwee ba léegi ci mbënn bi mais jusqu'à présent amul solution lool du tële sa waa ji wala. waaw parce que man toogaguñu wax man ak président ou aucun des ministres par rapport ak mon point de vue sur les inondations mm-hmm. donc mënuma ci wax lu bari. Mm-hmm. je compétis d'abord avec ñi ndox mi sonal. Mm-hmm. man attaqué na sama commune taw bu metti ba. dafa xar ay mbedd ba fondement kër yi di feeñ ma dépensé keroog personnellement avec mon propre argent science tenante sept heures du matin laa fa xëy di convoyé ay camion de gravats jël caterpillar ñu defar ko ba kër yi ba koñ bi taxawaat d'accord yooyu dégâts yu mel noonu mooy am ensuite kër yi ball à côté de l'arène et du cimetière mhm. dafa am kër yi am dañ ko fa tabax j'ai parlé de cimetière ah. non pas en mais cimetière yi bokkul sama commune. Mhm. c' à Pikine mhm. ah, foofu la président wax élargissement bi. Mhm. ba ñu war ba mu joxe quatre hectares à la commune de Pikine Ouest pour ñu yokk armel yi. mais armel yi je profite euh, média de votre pour dire que bokk euh, armel yi bokkul sama commune. bien que yaa ñaan naa yàlla ñu suul ma fa man. mu ma am fa kër. moo tax bu ñu ko yokkee dañuy sant ñëpp Pikine daan nañ ko kaas di marche. président déglu na dégg na def na ko sur la question des inondations moi j'ai toujours eu euh, euh des solutions mm-hmm. pour man c'est une aberration dans un pays sous-développé ndoxu taw ñëw di gaañ nit ñi c'est il faut un système tel que mu jeex ñuy yóbbu ndox mi di ko tuuri géej la crise de l'eau la ñu jëm dans trente ans mm-hmm. ndox risque d'être une denrée rare ku yàlla dox taw mu ñëw soo ko mënul naan mën nga ko transformer wala nga def ko un mooy de d'arrosage maraîcher pour que sa agriculture jóg te ndoxu taw yi c'est juste une canalisation avec des bassins pour contenir l'eau topp les zones de nivellation avec un assainissement avéré pour ñu mën a jëriñu waat loolu c'est ce que je propose au président de la République cest à existe en Europe da mm-hmm. ngay dem France Italie ba may seeti Maam Jaara maam jaara femme sama mhm. sama xarit sama jigéen ma may këram dafa génn néegam jox ma ko ma dëkk mhm. fa pendant une semaine ànd ak Leyti Fall un artiste Pikine mhm. banlieue ñu ñu demoon wuti partenaire maam jaara dalal ñu jël ñu aéroport mais dëkkam fi mu dëkk kër fi mu jàkkaar lool soo génnee di féexlu maanaam canalisation bi mun nga cee feey oto day dugg ci biir il y a des enzymes qu'ils dans l'eau ba du xasaw mais da xam ne lii ndoxu force la buy dem mais boo ko toppee fa muy mujjee dañ koy épurer muy dem di set maanaam maa duñ ko naanaat dañ ko dugalaat ci kër yi robinet yi mais ñoom duñ ko naan sangu raxas ustensile donc traitement des eaux mooy solution des inondations ñu war a sant yàlla tàcc bu tawee ba bëri mais ñu organiser suñu dëkkuwaay ba ndox bu dikkatee du ñu tiital mais dañ koy canaliser ndax mbindeefu yàlla la ñu am fu fuñ ko jaarloo parce que yoon yoonam ndox yoonam foo ko sëkkee rek ba mu wër ne sëkk nga nga dëkk soo gàttee xel mun nga nelaw mhm. soo amee xel xam nga ne yaa ngi lor ñeneen ñu muy wër yoonam suuf su dee fii la mu seetu ko feneen mhm. moo tax toujours ndox boo au Ghana par exemple mhm. du ñu tabax jamais dans une zone d'eau du ñu toj montagne dañ koy wër garab sax ci digg tali da nga koy gis cest di dire il respecte la nature au point que du fekk fu am déeg nga dëkk ko def ko kër mm-hmm. aucune administration waru ko autoriser donc depuis Abdou Diouf Senghor Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall pour man erreur bi ñuy def mooy accepter zone loolu maintenant bu ñu demee ba nekk zone urbaine comme fii ñu dëkk nii capitale nga xam ne agriculture bi amu feeg yooyu il faut penser comme aux Pays-Bas mhm. il faut penser comme les Chinois l'humain d'abord capable d'être dans l'eau d'y habiter avec une adéquation et une acculturation mhm. de la cohabitation entre la nature et l'homme mhm. loolu mooy la solution bu may proposé pour les inondations. di rappeler internautes yi aussi ñu ngi jàkkaarloog Amadou Diarra muy maire wu Pikine Nord Amadou Diarra yàgg na ci politique pratiquement plus de trente ans comme ni nga ko waxee waaw def nga ko politique donc 1986 nga commencé politique donc logiquement Amadou Diarra war na xam nu politique gu Sénégal di fonctionner mhm. jamono ji dafa am benn coalition bu mag mhm. buy waaja am muy coalition bu am ten opposant yi ci boppam la muy Serigne Moustapha Sy moom moo révélé Ousmane Sonko bu Pastef Khalifa Sall ci la bokk Euh, ñoom ñoo taxaw ne. ñett nga wax gëm de nga ne bu mag. <laughs> waaw bu mag Serigne Moustapha. Ah. Karim Wade sa waa ji. Khalifa Sall. ah ñooñu soo leen. tuddee waaw non coalition bi maanaam ñooñu ay mag lañ. <laughs> waaw ponkal lañ. waaw ñu baax lañ. Mhm. mais coalition bi laa dafa mhm. tuuti maanaam yi ko boole dafa bëriwul quoi. Mhm. par rapport ak sunu bos ñun ay quarante cinq parti yow. mais coalition bi tàmbaleegul def na bir bi. Ah. Ah waaw bon te yow miin nga politique bi. Mhm. est-ce que. coalition c'est normal gis nga gis nga coalition opposition bu ko deful jaru muy dem élection jaru muy dem élection parce que mënoo fekk ñay bu toll nii coalition benn Bokk Yaakaar mhm. nga bëgg a toll ni mbote nga koy nga koy nga koy dékku diggante pouvoir ak opposition loola sans être insolent ba may nekk opposition sax dama doon wax leader opposition yi gaaw leen juboo pour faire face soo leen ko deful ma xam ne bugg leen politique. foofu la président Macky Sall amee fulla ak fayda. amee xarañ bu toll nii day yokk rek. fekk gaynde bu toll nii Pikine jaraa Diarra pikin Pikine nga tudd PDS nga ne faalewuma ko na dem ndokk ah moom mu dem woo gaynde bi dugal ci këram bukki du fa jaar. béy bu ñëw mu fàdd donc c'est loolu mooy xarañu c'est loolu tax ma ne président Macky Sall il a raison amu fi moroom boo génnee Abdoulaye Wade amu fi moroom am naa ñu ne moo ngi koy xalamal non. te eh, dafa am Ibrahima un exemple qui m'a écœuré boobu maa ngi ci opposition bi. Mhm. Idrissa Sa Idrissa Diallo nem si yàlla si. Mhm. c'était un maire opposant bokk ci Khalifa Sall. bu mhm. décédé amoon une majorité dans son conseil municipal. su décédé l'opposition comment elle doit elle doit se comporter du ñu créer une coalition ku nekk ka nga bokk nga wooteel pour ne serait-ce garder le poste de maire ils ont dormi di xeexante di tendance à affaire président am fulla woo gars yi récupérer mairie bi loolu mooy politique il faut mettre les moyens d'atteindre tes tes ci laa mere gars yi bàcc li mi laa dégg ci tele yi mu toog fale di saaga mhm. waaye dañoo corrompre ni ñi de yow loo def déjà sur le terrain da ngay dem dëkki Dalifort mhm. fanaan fa ñetti fan woo nit ñi wax ci ñoom fulla la fayda ak jom bu leen dem pour la mémoire de Idrissa na nañu jëlaat mairie bi teg ko kenn ci ñoom ba may nekk opposition loolu laa doon mais bu doon tey tey tey daf nay xarañ damay wax gars yi na leen récupérer bi ne mun naa wax ak kii mun naa wax ak kii. Mhm. donc c' est ça qu'il faut comprendre Macky Sall il est très efficace et efficient en politique s'il la un objectif il le cherche il l'obtient et de jour en jour finalement da ngay naan gars baa mhm. keneen ngay gis kan. donc aujourd'hui Sonko il dit oui du ma wax ak parce que c' est du système oui du ma wax ak parce que il présidentielle bi jege si mu jaaxle mu dagg campagne am pour seeti papa Ablaye papa Karim Wade mais da nga naan quelle cette cohérence dégg naa day fusionné aussi ak PDS nangam des gens qu'il voulait fusiller mhm. quelle cette cohérence donc Sénégal il faut que ñu xam ñi nga xam te ne ils ont un objectif di wax ak ñoom bu ñu ko atteindre capable de changer et ça c'est là où je veux nga may ma ko dañoo jëm ay élections locales yi nga xamante ne suffrage universel direct la mhm. donc day am ñaari liste majoritaire tête de liste bi suñu gañee mooy doon maire ak liste proportionnelle maire bi xam nañ ko bu fekkee liste bi gañe na mooy ka ca bopp ba ci bopp liste majoritaire bi yeneen conseillers ci liste majoritaire bi dañuy daje ak ñi falu ci list proportionnelle ci yeneen liste yi ñu daje xool adjoint yi kan ak kan lay doon mais léegi opposants yi bu ñuy négocier jamono ji yaa xam Pastef la yaa xam PDS la yaa xam RV la yaa xam Pape Diop la. Mm-hmm. Euh, bokk gis-gis bokk gis-gis yaa xam Malick Gakou la. Mm-hmm. dañ lay wax waaw kay ànd ñun bu ñu faloo ñu def la adjoint maire. Mm-hmm. bu ñu def a am ñett la ñu war a am. waaw ñu ñu bu ñu faloo ñu def la adjoint dem seeti soxna si ne ko parité la bu ñu ñëwee ñu jox la adjoint adjointe au wax keneen bu ñu ko waxee onze personnes te ñetti adjoint la ñuy def. ku nekk ñu ne na ñam sama diggante ak yow. Mhm. am la lañ ci jublu pour yokk seen mbooloo ba ñu fal leen ñu woo onze yëpp ne leen bon falu naa ba pare mais maa leen digoon mais munul nekk ñett rek lañ ci war a jël kaay leen waxtaan seen biir moo tax ñu ñuy seeti di leen dig je profite profite ci Sénégal pour wax leen na ñu def attention mhm. aux mensonges des négociations conseil bi mooy fal de mhm. da ngay xool waa ji ba mu doy la programme doy la jëmmam doy la pas-pasam ak amuuru goxam doy la compétence am doy la expérience am ak ancienneté am doy la comme man nga ñëw topp sama ginnaaw lu ñu am ñu bokk pour doxal suñu gox mais pas pour des postes gëmloo ne kaay ak ñun ñu fal la nga jël say lépp def ci nga yegg ñu fal mu ne leen naxe mbaay am na fi expérience donc comme ay naa ci yàgg naa ci politique mhm. Sénégal laa koy jaaree ma jàngal gars yi feem boobu mhm. ñeneen ñi foofu lay jeexale ñeneen ñi dañuy dégg benn partie politique opposition ñu xam ne kii du gagné waaye mun na am ñaari conseil wala ñett léegi bu fekkee ñaari liste la bu perte képp ku ñu bindoon ci lisse majoritaire bi doo nekk conseil mais bu dee ñett nga am da nga koy jëlee ci ñi bindoon ci liste proportionnelle bi léegi yenn politiciens yi nga xamante ne amuñu parti langaamu la ñuy def dañuy gis benn parti bu am Bës du Ñakk wala RV wala Pastef wala fii ci Pikine Nord parce que ñooñu ñooy jël deuxième wala troisième wala quatrième ñun majorité bi c'est sûr que incha allah ñooy jël paie. Mhm. ñooñu la ñuy négocier wax leen. def ma tête de liste bu ko defee waa Pastef bu ñu gisee waa ji def ko tête de liste proportionnelle ñoom ñu dem majoritaire. Mhm. bu ñu pertee Pastef day dee moom mu nekk conseil donc yéen waa Pastef gars yi nga xamante ne bokkuñu Pastef di ñëw di négocier ak yéen bu leen nangu ñu dem liste proportionnelle nañ dugg. buñ gëmee seen bopp ci liste majoritaire. yéen waa RV ñii ñëw di gis si Lamine Gueye naan ko dañu ànd ak yow jàppale ñu bu dee am na luñ lay indil yow Lamine yóbbu leen majoritaire. maa ngi yëg ñuy négocier pour dem liste proportionnelle bañ leen dañoo bëgg ñëw wéeru foofu buñ leen gañee yéen doo leen bokkati def nañ ko kan le réew mi de Idrissa Seck mm-hmm. cent conseillers municipaux de Pikine zéro conseil te dem na élection xam lu tax mm-hmm. ils ont mal négocié dañuy ñëw def coalition ak kenn ñoo ne ñun réew mi dañuy gagné lekk liste majoritaire mm-hmm. gars yi négocier nekk liste proportionnelle bañ demee élection réew mi ñàkk am quatre conseils quatre ya doon yeneen parti boo calculer ñu bokk réew mi ci cent conseils yi réew mi amu ci conseil ci message boobu donc yéen uh-huh. yéen yi nga xamante ne c'est sûr que da ngeen di perte ñi ngeen di négocier yóbbu leen leen majoritaire bu leen leen nango yóbbu proportionnel jël leen seen militant yi leen gëm ngeen bëgg ñu doon am expérience ngeen def leen ci liste proportionnel yi mm-hmm. pour que bu ñu génnee ñu am expérience locale ba beneen yoon mm-hmm. ngeen gën a mappat bolo ko amul ren xëy na yeneen at yi mm-hmm. ngeen jéem a am espoir bëggoon nañ waxtaanee ci yeneen te wax ne man dama leen fan ah, mais man sama téléphone saa yu ma duggee. damay jékki-jékki Sénégo affiche mi ñëw. xaw ma dafa am publicité boo leen di fay xaw ma mais vous marquez toujours sama smartphone. waaw ah, merci ba tax may dugg di gis vos gros titres di dugg di di mën a gis. Mhm. donc je félicite ci digital bi. merci yàlla leen yàlla may ngeen dem ba gën a ëpp euh, en fait waaw seen. ngeen jëm comme yeneen télé yi mag mm-hmm. mm-hmm. ngeen dem ba dab leen raw leen ba nekk dans mm-hmm. dans le monde dans le dans la diaspora maa di remercier bu baax ah. di féliciter Mbaye Gueye qui a beaucoup insisté ak état d'esprit bi ma am ñu jël Bouba Sall di sama chef de protocole j'étais pas dans l'esprit de le faire mais c'est là où on les grands hommes c'est dans la difficulté qu'ils peuvent se mesurer être zen et je pense que je me mesure à ça pour essayer d'oublier mais j'ai le cœur pincé par l'agression et toute la manipulation autour de Bouba donc je suis Bouba Sall. Mm-hmm. Sénégal mu ngi lay massaw aussi ci situation bii nii nga nekk. Sénégal di la gërëm aussi si sa disponibilité parce que yombul woon. ñu ngi dox jox aussi euh, internet yi rendez-vous si yeneen i émission si la grand entretien merci beaucoup. c'est